mais avant ñuy jeexal aussi bëgg naa aussi nga joxe sa pronostic euh, si match bi ñuy jublu fii ak ak fii ci Ghana 14h mooy match Sénégal Gambie. waaw mën a jox dëgg yàlla Aliou si suba wax naa moom. Mhm. ni ko trois 0 laa bëgg. Mhm. waaw dama bëgg daal ñu d'entrée de matière ñu war wan Sénégalais di leen euh, ak euh, yeneen coupe équipe yi. Mhm. dañoo ñëw pour gagné waat coupe bi. ñun suñu ambition Sénégal dafa tàmm gagné te danoo war a di gagné catégorie Afrique yépp football dañuy gagné léegi danoon loolu loolu tàmm nañ ko ba pare buñ ko kenn xaj nan a gagné rek 3-0 daal man mooy sama pronostic léegi pour pour euh, euh, concernant un peu la coupe d'Afrique jàpp nga ni Sénégal dina conserver son man de loolu laa bëgg te loolu laay ci ci laay xëy ci laay gont euh, dëgg dëgg man day assise presse francophone moo fi bàyyi waaye kon kon heure bi ku ma dëgg Côte d'Ivoire ni ma mos sax te fas yéene naa dem ànd ak gars yi tàccu ñu ngay yëpp bi ñu ànd jëm si Sénégal jëm kanam. ok donc euh, dernier message à lancer monsieur Diagne. bonne chance au lion. ok ñu ngi lay jaay fële ci disponibilité bi aussi donc ñu fàttali.